bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala sayidi almursalin muhammadin wa alihi wa sahbihi mbokk julit yi mbokk yi taamu Tawhid TV di ko wettali ko eh, seen mbokk la Abu Taha Mouhamed Alioune Guèye moo ñëwaat ak ci seen émission Al Huda ngeen koy am aljuma ji nekk ci waxtu wi émission boobu ni ngeen ko xamee téere borom bee ko tax a jóg ci jàng ko ak jàngat ko waaye ak fesal ci lépp loo xamante ni day junju ab dayoom ak ngëneelam suñu jotaay bi tey nag ñu tàmmoo jàngat lenn ci suuratu luqmaan te mooy la ca tënku ca ndénkaan ya nga xam ni luqmaanul xakim doon na ko jox doomam ja ci biir saar wi ñu koy tuddee wasaaya luqmaan jotaay boobu nag incha allahu dinañ ci dinañ ci ñu ngi ci feggoog sunu mbokk euh, Oustaz Abdoul Aziz Thiam incha allahu ci kanam tuuti dina dugg si nuyoo ak yéen jàngal ñu laay yi ànd ak ñun émission bi ni mu ko baaxaw di defee moom wala képp koo xamante ne dinañu gunge ci émission bi waaye suñu invité bi nga xam ne nag moom lañ bëgg a àndal ci aay yi mu jàngatal ñu ko mooy sunu mbokku Abu Ñeng wala Abdallah Ñeng euh, ci di turu gën a mat wi waaye gën a siiwee rawatina ci euh, barab bam nekk ak liggéey bi muy def Abu Ñeng euh, di kenn ci njabootu Oustaz Mouhamed Baara Ñeng ndax euh, moom ak baayam ñoo bokk ndey ak baay waaye it muy baayam ci wàll gépp ndax moo ko jàngal alquranul karim formé ko ci liggéeyu jàng ak jàngale nekk ak moom ci daara ja dégg ko liggéey bu am solo boo xam ni ku xam daara yi Ahmed Sakhir Lo fële ca Boune di nga xam ni abu dafa bokk ci arkaani daara jàll ni ko yàlla yokk tawfiq ak taysiir euh, moom moom mi incha allah moom la ñuy àndal ci émission bi tey mu war a ñëw ak ñun nag ci jàngatal ñu ay yooyu nga xamante ni borom bi daf ñu ko nettale subhanahu wa taala ci suratu luqmaan muy ay ndénkaat yu am solo yu luqmaan doon jox doomam jooju yi nga xamante nii moom la doon dénk ndénkaat yooyu bala ñu ñëw ci moom incha allah dañuy jox Cheikh Abdoul Aziz kon mu nuyoo eh, dugg ak ci émission bi bu ko defee ñu ñëw ci sunu invité Cheikh Abdoul Aziz. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam ñu ngi lay nuyu di la ziar. Mm-hmm. di baalu xàq bu baax. di amaati mbégte ci daje ak yow. Mm-hmm. Euh, comme ni ma koy faral di waxee. Mm-hmm. mu bokk ci émission yi nga xam ni euh, émission yu am solo la. Mm-hmm. ndax euh, ni ñu ko tuddee. ak fii ñu ko tuddee. ak fi nga xam ni foofu la ñu koy defee. boole yu am solo yoo xam ni benn bu ci nekk rek. njàngat la ci àdduna te kenn ku ci nekk war nga cee bàyyi xel bu baax a baax a baax. ma xamal la nit ni nag ñu baree bari ñu ngi koy topp. ndax euh, euh, ñu bari ñu ngi ciy jariñu ba ba tax ñuy woote di ko di ko rafetlu mu nekk lu lu lu am solo loo xam ni macha allah daal yàlla yàlla na la ci yàlla gën a jàppale incha allah di nuyu Haji Abdallah mm-hmm. euh, Abu ñu ngi koy nuyu bu baax ziar la baalu la xaq ñaanal la borom bi li nga fi nar a ci xam-xam yàlla nañu ko mm-hmm. jëriñoo ñun ñëpp incha allahu mm-hmm. rabbi salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah Abdou Aziz duggi nu am na solo nuyoo am na solo nu ànd kon dalal sunu gan Cheikh Abou Euh, noonu ma ko junjee sànq jéem naa xamal téléspectateurs yi kan ma sunu gan. Hmm. waaye looñ ci mën a doon rek ginnaaw boo nuyoo ci ñu gën a xam kan mooy gan gi nga xamante ni moom moo ñu war a jàngatal aaya tey bisimilah. Hmm. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. Hmm. Euh, Cheikh Mohamed ñu ngi leen di nuyu. di leen ziyaar. di jiital si nuyoo bi kii kilifa kër gi. di ko wàcc si ñi yëngatu si kër gi yëpp. ñaan yàlla yàlla na yàlla booree jàppale yàlla yàlla taxawu leen gën leen a dëgëral. Mm-hmm. di rafetlu itam comme ni ko sunu mbokk mi waxee. Mm-hmm. muy tënk bu am solo. Mm-hmm. mooy kër gi. waxuma la yin fii def. waaye tur wi rek. saa boo ko déggee dafa am lu bëree bëri. est-ce que gidee. est def ñi yëngu kër gi yëpp ñu tur wi. allahumma TV. allahumma euh, def ñu nekk al comme ni mu nekk woon sunu maam Ibrahim mhm. ba yàlla ni ko taxasala Ibrahima xalila mhm. kon ñu ngi ñaan loolu mhm. di rafetlu nag émission bi comme ni ko mbokk yi mbokk mi sànq euh, man euh, fan yi maa ngi si doon dugg daanaa ko romb nag mais daaw ma diglu lépp am nga jot geeg yow waaye nag fan yi moom mu naa jot bi ma bi ma jokkoo yow ba nga kii laa gën a xam dëgg-dëgg solo say njëriñ si di ñaan yàlla yàlla na yàlla dollee dëgëral dollee mm-hmm. jàppale ñi nga xamante ni mm-hmm. ñoom ñoo koy taxawee mm-hmm. sa yow nga nekk si bopp bi ba mu gën a gën a yaatu parce que lu am am njëriñ la daal waaw ñu ngi leen di seedeel comme ni ko sëñ Thiam waxee ñu ngi lay am am solo la am am solo waaw ñu ngi leen ñaan yàlla mu doolee leen foofu allahuma amin yaa rabbal alamin salaamaaleykum warahmatullah eh, jërëjëf Cheikh Abou jazakumullah xeyran ci dugg si beeg nuyoo gi ak kàddu yooyu nga xamante ni wax na ko ci kër gi mm-hmm. ak ci émission bi ñaari baat la yoo xamante ni eh, du ñu ñaar benn lañ ndax al imaam ibnul qayyim rahimahullah day wax lépp alquran tawxid la lépp alquran tawxiid la nu am kër gu tudd tawxiid TV am ci émission bu tudd alhuda di ci jàngat alquranul karim yàlla na borom subhaana taala defal nu dund alquran dëgg te moo ñu dund tawxiid mu gërëm ñu àdduna ak Aziz eh, wasaaya luqman mhm. yaakaar naa ni buñ ko doon jàngat dañuy mën a tàmbale ci walaqad aatayna luqman al xikma mhm. eh, da nga nuy bànneexal tuuti incha allah ci yëkkatul ñu <laughs> lenn ci aaya yi no doog a ñëw ci kër bi incha allah. incha mhm. allah xanaa dañuy ñaari ay wala wala benn rek. waaw waaw ba ca ba ca kii rek bi ma kuntum taamaluuna dana tane ah moom ngay duñ ci doyal. incha allah rabbi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئ أنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم macha allah macha allah jazakumullah xeyran aayaat yi am na solo waaye njàng mi am na solo neex na wax dëgg yàlla fekk si ne xayib alquran ak taar bi ba tax na ku ko déglu ku nekk am naa yaakaar ni yëg na ko ci xolam yal nañu borom subhanahu wa taala boole jëriñ ci alquranul karim amiin amiin eh, mbokk yi daan nañ faral di def eh, génn dara ci axkaam ci laay yi nga xamante nii jot nañ koo jàng xam naa ni duñ ci guddal dama daan faral di wax ne bu nu amee gan gu am solo dañ koy bàyyil waxtu am solo <laughs> te sunu gan ak tey gi macha allah gu am solo la incha allah buñ duggee ci waxtaan wi dina dina dina feeñ mm-hmm. eh, waaye ayat yooyu Cheikh Abdoul Aziz jàng E, feeñ na ci e, lu mel ni almaddul munfasil mhm. ci wa in jahadaka ala an tushrika bi mhm. nag mooy xëcc goo xam ni sabab si li waral xëcc gi mooy hamza mhm. leeroon na ci suñu jotaay yi wees ay yoon moo xam ci man la moo xam ci ñenn ci invité yi ni xëcc moom bu ñu dollee dayob arafu xëcc gi ci tabi'i buñ ko doole ñaari xarak rek mu ëpp ko mhm. daa am lu ko sabab mhm. la koy sabab benn la ci ñaar hamza wala sukun mhm. hamza wala sukun kon saa boo xamee ni xarafu xëcc ñëw na hamza topp ca xëcc googu des ci dolli lu ëpp ñaari xarak bu dee sukun tamit noonu xëcc googu nag bu dee daa jokkoog xëcc gi wala hamza gi kon bu dee daa jokkook xëcc gi ci benn baat mhm. mu tosu lay tudd waxuñu googu bu fekkee nag ni dafa teqali ko ak xëcc gi moom hamza gi ci beneen baat nga xam ne xarafu xëcc wi moo jeexal baat bi mhm. hamza gi door beneen baat bu loolu la ñu tuddee al madd al munfasil mhm. xëcc goo xam ni naam hamza sabab si waaye infasala al madd ani sabab min kalimatayn bu ci nekk nekk ci baatu boppam mm-hmm. loolu leen nekk ci ala xarafu xëcc ko jeexal an tushrika mm-hmm. baatu an hamza mm-hmm. daal koy door bu ko defee lu mel noonu eh, moo nekkaat ci yaa bunayya innaha in taku mithqal xabati min xardal ak mën naam ci yeneen barab ci fi ñuy jàng madd googu nag atte mooy aljawaaz xëcc gi dagan na gàttal gi dagan na xëcc gi tamit arbaaw xarakaat dagan na ci ñeenti xaraka juróom benn xaraka dagan na ci wala yu nekk seen diggante waaye lan laa ciy jàng man da ngay tënku ci riwaaya bi ngay jànge mm-hmm. wala ci tariq bi ngay jàng kii jàng riwaayat xafs da koy xëcc arbaaw xarakaat mm-hmm. wa in jahadaka ala an tushrika bi mm-hmm. yaa bunayya innaha in taku ak feneen fi ko fekk Eh, Cheikh Abdoul Aziz daanaka loolu doy na sëkk bi eh, duñ ci guddal dañuy eh, dalal ñëpp a ngi naan waa daa bari wax <laughs> nañu jox gan gi <laughs> Cheikh Cheikh Abou wasaaya Luqmaan mhm. saar wi nga xamante ni ci la ko yàlla rotale mhm. Luqmaan ci boppam la ko tuddee mhm. lan nga ñuy wax ci njalbeen ci saar weeg kooku nga xamante ni moom la borom bi tudde saar wi alhamdulilah Cheikh Mouhamad gannaaw sant yàlla subhaanahu wa di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga nga ko waxee ñu war a ànd jéem a jàngat euh, wasaaya luqumaan fii surati luqumaan ndénkaan yi nga xamante ni luqumaan doon na ko dénk doomam saar yi nga xamante ni moom lañ tuddee suratu luqumaan suratu luqumaan aw saar la si saari alquraan yaakaar naa ni bu ma moom mooy fanweeri saar ak benn mhm. ay aayaam toll si fanweer ak ñeent mhm. nekk si juzu mhm. ñaar fukk ak benn waaye bokk si saar yi wàcc ci makkatal mukarram saar la wu làmboo ci sedd nu kaamil bi séddale nu kaamil ñaari xisib ñaari xisib ñaari xisib ñaari xisib mi ngi ci ñaateel mi ngi si ñaar fukkeelu juzu ak benn juzu ak benn kon saar la woo xamante ni. Mhm. saar làmb yu bari. Mhm. waaye nag tey ñun li ñu tax a jot seeg mhm. si la ñuy wax. moom mooy ndénkaan yi nga xamante ni rot na si biir saar wi. Luqmaan doon ko dénk doomam ji. kon loolu la ni e, jëlagul si côté saar wi rek. dëgg la léegi ñu dugg si ndénkaan incha allah. macha allah jazakallah xeyran Cheikh Galaye Cheikh Abdoul Aziz. wax na lu am solo mooy si ja e, maanaam junj nañu wi. E, fu nekkee ci lim. fu mu nekkee ci xaaji juzu yi alquran yi waaye tamit laahi yi ñaata la jëmmi kiñ ko tuddeeg liñ soxla ci saar wi eh, yu am solo la cheikh hmm. abdul aziz waaw loolu dafa dafa dafa am solo lool ci uh-huh. ñu koy xamle léeg-léeg dina yombal kii topp dina yombal kii topp nga xam ne bu demee rek <laughs> moom buy déglu dina xam saar wi kon fa mu ne uh-huh. léeg-léeg nga dégg kuy seetaan uh-huh. bëgg di déglu di topp kii wax la muy wax waaye émission bi dana jeex te doo xam fu saar bi nekk parce que day def nii ba yàgg mu defaat nii ba yàgg ndekk saar bi eh, lii dina yombal kii seetaan nga xam ne ci début bi rek moom daanaka tijji na téeréem xam na fi saar bi ne xam na fa mu toll bu dee ay jukki-jukki la yor xam na ban lay jël du jël benn seet ba mu jeex mu doog jël ba ca des day jubali rek direct ca eh, ba mu nekk mu jël ko xam na tamit lépp daal xam na aay ni mu toll eh, dafa nekk lu yomb loo xamante ni kii seetaan dina ko yombalal ba ci ñun ñi toog dinañu yomb yombalal ñu nit mm-hmm. ñu xam euh, fi nga xamante ne bi fa la bëgg a commencé mm-hmm. ak fa fa mu fa mu a yem ndax bu limee euh, saaru alquran yi mm-hmm. te ñu war a jàngat ci euh, dina ñu xam ni kon saar sàngam la war a waxta la war a waxtaane waaye aaye sàngam la war a waxtaane lam ca war a waxtaane fii la ba fii macha allah mu nekk lu am solo loo xamante ne bi kenn ku ci nag mën na cee bàyyi xelam incha allahu rabbi eh, jërëjëf lu am solo ndax gan gu am solo la am am waxoon naa ko sànq <laughs> lu am na solo <laughs> Eh, mbokk yi kon ñu ànd topp bu baax danaa faral di fàttali lu bare bari bu ma agsee ci lu mel nii lenn ci yonent yi yàlla tudd seen al ci alquran hmm. wala nit ñu baax ñi may nettali waxi alimam ibnu kathir alimam ibnu kathir al mufassir rahimahullah ci téeram boobu mu tudde qisasul ambiyaa fi l quran ca muqaddima ja dafa wax ni képp koo xamante ni borom bi subhanahu wa tudd na sawtur ci alquran wala mu nettali dara ci sa histoire ci alquranul karim am na ci dundu kooka lu luy jariñ julit bi ci dundam àdduna ak àllaaxira mhm. moo tax de di nafari xisasul quranul karim di ko jàngat di dem ci téere yi ko yaatal nga xam ne yonent bi saraan ko fa borom xam bind ko dajale ko fa dafa am solo ci dundu jullit bi mhm. ngir ni da koy jëriñ àdduna ak àllaaxira te dina feeñ luqumaan moo doon dénk doom ja ca lu jiitu yonent bi at yu bari mhm. waaye buñ ko jàngatee ba topp ko day gis ne yii mu doon dénk li tax yàlla nettali ñu ko mooy dafa dëppoo ak li yonent bi sallallahu alayhi mu indi mhm. ñu war ko dina mu jëriñ ñu kon mbokk yi nañ bokk topp ngir ni ndénkaan yi yàlla di nettali luqman ci doom ji mhm. yi ñuy jëriñ la ci sunu dund ñun mhm. fii ci àdduna mhm. ak fële ci àlaxira euh, Cheikh xam naa ne du ñu jël aaya aaya de kon mën naa am émission bi jeex waxtu wi te duñu jeexal <laughs> kon dañuy dëxëñ niy dëxëñ nag mooy bu ñu xoolee wasaayaa yi manes na koo séddale ndénkaan yoo xamante ni ci misaal daa aju ci tomb sàngam mm-hmm. ak yoo xamante ni daa aju ci tomb mm-hmm. sàngam ak yéen demee noonu lañ koy seddalee la ñuy njëkk a jël incha allah mooy ndénkaan yi nga xamante ni rot na ci ndénkaani Luqmaan ci doom ji mm-hmm. aay yi tudd ko te mu aju ci wàllu pas-pas ak ngëm yooyu lañ ci mën a kenn waaw euh, ñu ñëwaat beneen yoon euh, ba ñu ñëw si euh, maanaam ndénkaan yooyu dafa am loo xam dafa jiitu ndénkaan yi mu am maanaam jog lëkkaloo gu rëy rëy mhm. xam nga saar wi mhm. maanaam lii sabab mu wàcc mhm. comme ni ko waxee moom mooy ni ñii seeni xissa saa boo si jàng boo ko jàngatee rek nga gis lu bari lu baree baree bari loo xamante ni day jariñ yow jullit bi doon da fekke woo ko loolu sunu borom ne woon ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nahnu naqussu alayka ahsana al qasasi kon euh, dañ ko fay war maanaam mm-hmm. ñuy jàng seen i maanaam seen i xissa mm-hmm. nga xamante ne doon na si alquran mm-hmm. am solo boobu mu am solo loolu moo tax waa Quraysh dañ doon ñëw si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko daaj ni ko waa ñun dañuy léegi luqumaan luqumaan doomam ji luqumaan waa kan mooy luqumaan loola moom moo waral saar wi daal di wàcc ngir jàngal nit ñi jaam yi kan mooy luqumaan ak lan la ko yàlla xéewalaloon mhm. alors xéewal yooyu ko yàlla xéewalaloon mhm. yan njëriñ leen si mën a am mhm. luqumaan ñu bari si al na dañuy wax ni euh, maanaam dafa am ñoo xam ne dañoo dem ba si ak mbaaxam lu ko yàlla joxoon si xereñ ñu dem ba jàpp sax ñu koy ñi ñu koy wax ne ab yonente la waaye li gën a wéer moom mooy ni ab yonente nit la woon ku baax mhm. waaye yàlla joxoon ko benn si yi muy jox yonente yi alayhimu salaam mhm. xam nga yonente ku yàlla yónni yàlla jox na la nga nekk yàlla jox na la nubuwa mhm. ba pare jox la ak xereñ xikma xikma moom nag yàlla jox ko woon nubuwa waaye joxoon na ko xikma xikma googu nga xañ ne yaatu gum yaatu woon tax na ñu koy boole si yonente yi doone nekkuloon ab yonente dañuy wax sax ni. Mhm. xam-xam. Mhm. moo xereñ moo ëpp doole xam-xam. Mhm. parce que tey da mun sukkandikoo si alxuraan da nga gis ni. xereñ moo ëpp doole xam-xam. parce que ba yàlla ba muy wax fële nii. Euh, euh, lan lay wax fële nii. wa ma yu'tal xikmata faqad uutiya xayran kasiira ah. waaye sa xam-xam fële nii wa maa uutiitum mina al-ilmi. illaa qaliila illaa qaliila kon xikma googu. luqumaan yàlla daf ko ko joxoon feeñ na si ay waxam boo xam ne demee si téere imam euh, euh, suuti bi bind si benn téere si ay ndénkaanam maanaam waxam danaan wax lu gàtt mu lu baree baree baree baree baree bu ñu jëlee si waxam yooyu rek benn mën nañ si doona dénk doomam ji mu ni ko del fàtte ñaar mhm. waaye del fàttaliku ñaar Mhm. ñaare ngi nii chaque jour dee koy fàttali ko bu ko fàtte mukk mhm. waaye ñaare ngi nii dee ko fàtte est-ce que mhm. xam nga loolu wax ju gàtt la dëgg la mu ne ko ñaar yi xamante ni moom bu koy fàtte mukk mooy sa borom ak dee est-ce que ah. dëgg sa borom ak dee moom nit ki lu fekk du ko fàtte moom di ko teg si kanamam mën naa jub chaque jour dina jub ah. yi nga xamante ni moom de koy fàtte mooy moom mooy koo defal njekk fàtte ko ah, koo defal njekk waaw fàtte la nga def hmm. de xaar nag di pay gi ëllëg. dëgg la waaye ku la tooñ itam na nga ko fàtte parce que lu fekk ko rek. Mhm. yaa ngi màttu ne saa moo gisee wala lu ma gisee moo ko a fay naa ko fay <laughs> yooyu ay maanaam dasee am lu bare lu ko si yàlla joxoon. Mhm. nga xamante ni wax ñu gàtt lay wax mu ëmb lu baree baree baree baree mhm. bare loolu feeñ si ak dundam. waaye feeñ na si yar gi nga xamante ni doon na ko yar ak njabootam. que loolu sunu borom mu ni. wala xad aateenaa luqmaana alxikmata an ishkur lillah man sunu borom jox naa luqumaan mhm. xikma mhm. xereñ bu mhm. baree baree baree kon nag li la war yow luqumaan mooy anishkur lillah sant ma man yàlla parce que wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna allaha ganiyun hamid yi aaye moom moo jiitu ndénkaan yi yàlla da xamal luqumaan ni ko xereñ gii ma la jox ba nga wàcce ko sa njaboot. Mhm. doon leen dénk di leen jàngal. Mhm. sant ma si man yàlla man mi la ko jox. Ah. parce que ku ma sant man yàlla sa la ma la jox. Mhm. defaloo ma ko man yàlla waaye sa bopp nga ko defal. parce que li tax defal ko sa bopp moom mooy ni. sant googu nga may sant moom mooy tax xéewal gi di yokk. Ah. est wax ni. xéewal rabu àll la la koy dott ba mu toog di continuer. moom mooy bu sant. bu mu sant waaw waaw parce que xéewal maanaam bu la ko yàlla joxee uh-huh. faaw nga koy sant dëgg la loolu moom mooy tax muy muy dooleeku uh-huh. sant googu nag uh-huh. ñun ñu bëree baree bëri si ñun ñii dañ koy jaawale nun koy defee ñii itam danoo gàttañ ñu sa dañu koy defee waaw parce que sant du rek toog naa la alhamdulilah yàlla jox naa la nga lekk ba suur naan ma maan toog rek naa la alhamdulilah donte sant la waaye dañuy wax ne sant gu ndaw la wa maa bi ni'mati rabbika fa haddith mhm. dañuy wax ne sant gu ndaw la mhm. ñuy sant dëgg moom mooy mhm. yow li la yàlla wërsëgal bu dee xam-xam la dee si jàngale si jariñe loolu mooy sant yàlla comme ni ko Cheikh Mouhamad Taha di ko def ak eh, sëñ Thiam bu la yàlla wërsëgalee alal sant gën gën soxla dëgg-dëgg foofu moom mooy ni sa alal ji def si lu yàlla bëgg dimbali si way ñàkk yi ah, di si financer fi sabilillah mhm. loolu moom mooy sant yàlla waaye de du yàlla wërsëg ma alal toog naan alhamdulilah sama alal di macha allah déedéet. <laughs> boobu si cant la waaye du ca du. doyu si doyu si doyu la yàlla nga am yenn man-man. Uh-huh. ko te liggéey ak yu man di doon uh-huh. sant ga mooy uh-huh. jariñ ga nga say jariñ sa société waaye jariñ ga nga say jariñ l'islam loolu mooy sant ko waaye du toog rek naan alhamdulilah mm-hmm, mm-hmm. kon sant googu mm-hmm. la yàlla jëkk a sant Luqmaan digal ko ko pour na ko si sant si li ko yàlla wërsëgal waaye dafa bokk si sant googu ko yàlla sas jox na ko ak njaboot loolu xéewal la na yàlla di ko xamal tam ni sa njaboot googu si sant yàlla sax dafa bokk si sant gi nga si sant yàlla mooy jàngal leen kan mooy sa boroom kan mhm. mooy seen borom. Mhm. waaw pour ñoom ñu teel a xam kan mooy seen borom. Mhm. parce que àq yàlla moo féete yépp kaw. balaa àq waajur di ñëw. dëgg la kon li la yàlla wërsëgal muy sa njaboot. dafa bokk si ni ngay feeñale ak cant yàlla si xéewal gi la la wërsëgal muy njaboot. mooy nga xamal leen kan mooy borom bi subhaanahu wa taala. est si xamal googu nag. la yàlla lay luqmaan wooye ak njabootam nag taaj leen nag. Ah, leen ndénkaan yooyu nag si mhm. biir ndénkaan yooyu mooy xamal leen kan mooy yàlla subhaanahu wa taala est que mhm. sa fa mu jëkke nag mhm. moom mooy si pas-pas akiida mooy fexe ba yow yow doom ji nga fexe ba yow sab xol ku dul yàlla du fi nekk yàlla rek moom moo fi nekk waaw nga jëkk a xam kan mooy yàlla subhaanahu wa taala xam ni yàlla rek lañ war a jaamu moom rek lañ war a wéetal waruñu ko boolee ak lenn ba pare nag leneen lu say topp dool say topp est-ce que mm-hmm. Mm-hmm. kon loolu moom mooy mm-hmm. al wasaaya al mutaalliqa bil usul al aqida est-ce que macha allah macha allah cheikh euh, abou cheikh abdoul aziz li ma wax mi ngi mi ngi feeñ macha allah allahuma la adur waaye am na solo am na solo gis nga ni mu lëkkalee anishkur lillah ak wasaaya yi mel ni kon euh, luqmaan borom bi dane ko defal naa la xéewal yu bari bokk na jox la xikma al xikma ba nga xam dañ koy taarife al isabatu fi l aqwali wal afaali wa wadau kulli cheyin fi mawdiihi buñ ko wolofalee rek mooy koo xam ni lu mu wax jub na lu mu def lu nekk nam ko defee noona la mhm. loolu nag borom chance dina ko defal nit dina gis koo xamante ni kàddoom gu nekk jàngale la Maxtaar ah, Sekk Mbooro yàlla na ko yàlla yërëm eh, yàlla may na ko loolu ciy wax alaaj Taala Siise mu ca na ba yàlla na ko yàlla wéral yàlla may na ko loolu ciy wax ak ñeneen ak ñeneen mhm. eh, yàlla defal ko yonent yëpp mhm. waaye defal ko tamit ñenn ci ay nitam Luqmaan bokkoon ci mhm. dégg mu ni koo sant ma mu bokk ci ni muy sante nag njaboot gi ko yàlla jox mu teg leen ciw yoon waaye fa mu njëkk a tàmbalee mooy xamal leen ki ko defal xéewal gi lu am solo lu am solo lu solo la wax te <laughs> fi mu toll nii. Mhm. damay ragal ni émission bi par papa ko moom. Mhm, est-ce que. Mhm. képp kuy bàyyi ci kër. tey émission bi sa émission la. parce que wa id qaala Luqmaan libnihi wa huwa ya'iduhu kenn mën leen bàyyi war nañ ca jànge di toog ak i doom di leen waar. toog ak seen doom. lii dafa dafa dafa dafa dafa am solo. ci kenn ku nekk. jàppee sa bopp Luqmaan. xam nga déggoo ko kenn ku tuddee boppam Luqmaan wala ku jël doomam tuddee ko <laughs> ci tur raar yi la bokk de. Eh? <laughs> ci tur raar yi la bokk. ay Huud waaw Luut. <laughs> waaw. Cheikh bi yàlla na ko yàlla ko waaye man jàngat bi mu ci war a def. Uh-huh. mooy képp koo xamante ne bi yàlla xéewal na la uh-huh. nga am soxna ba ami njaboot. Uh-huh. jamono jooju tudd nga Luqman. dëgg li la war mooy taxawaay bi Luqman amoon. nga am ko ci sa njaboot. <laughs> kon Luqmaan ak Bilal ñoo fi ëpp ay ay ñoo fi ëpp ay ju nekk am na Bilal waaye kër gu nekk daa war a am Luqmaan kër gu nekk daa war a <laughs> képp ku yàlla xéwale la njaboot rek uh-huh. li nga ca war a njëkk def mooy taxaw taxawaayu Luqmaan mm-hmm. na fekk nag uh, xigma gi yàlla joxoon Luqmaan même bu la ko joxul mm-hmm. dina la ci jox tuut mm-hmm. loolu mooy loolu mooy wane uh, ni nit fu mu toll même bu demee ba am yenn âge dafa war a jàng jàng du wees jàng du wees. Mhm. na dem jàngi. Mhm. parce que bés a ngi ñëw kat nga toog ak sa njaboot. Mhm. say soxna toog say doom toog. ñu laaj la loo xamante ne bi xamoo ko. Mm. te loolu doom bu nekk nag dina ko laaj waay jur de léeg-léeg nga toog ci jotaay boo xamante ne bii da nga naan yow yaay kilifa ga ñu tegal la benn fauteuil nga toog mhm. ñii toog ci ay siisu weñ ñii toog ci ay siisu kaw si mhm. ku ne tëll xam ni yaay kilifa mhm. waaw bu sa doom amee ci lu mu jaaxle du ko laaj kenn ci ñi toog ci suuf wala feneen ah, yow mi toog ci fauteuil bi ne yaay kilifa gi yow la koy laaj mm. léegi bu fekkul nag yow nga am benn ab fàggu goo xamante ne bi dara nekkul ci yow loo ko mën a tontoo bu boobaa gàcce day am te nag li di wax na gàcce gu gàtt gàcce gu gàtt moo gën bu gudd hmm. teela la wut loo xam ne saa yu la sa doom ne coxos rek yow nga mën koo tontu kon loolu dafa war euh, mboolem jur woo xamante ne bi <laughs> kilifa nga rek mm-hmm. jéem a la incarné Luqmaan ci sa kër mm-hmm. di dajale say njaboot di leen xamal kan mooy sa borom bi la may xéewal nga am oto mm-hmm. may la xéewal nga am kër may la xéewal nga am ay soxna may la xéewal nga am njaboot may la nangam ak nangam nga nekk directeur nga nekk fee nga nekk fii di liggéey lii nit ñi di la jox cër boo génnee ci biti nit ñi jox la ñaari loxo sumi la dàll mbaa ñu seen baxana nuyu la la jox xéewal googu la yàlla jox mhm. dajaleel la ko jox allahu akbar allahu akbar allahu akbar <laughs> jàngat bi am na solo kenn ku nekk ci këram na jëmane ko am luqmaan te fi mu koy doore mooy sant yàlla ci xéewalam ci boppam mhm. xamal njaboot gi kan mooy yàlla moom yi mhm. cheikh abu ñëwal nañ ci alwasail mutaalliq bi usulil aqida cheikh abu mën nañoo jàll ci beneen juzu ci wasaaya yi mooy alwasail mutaalliqa eh, bil amal saliha yi nga xamante ni dafa aju ci dénk njaboot gi wala dénk doom ji ngir mu taqoo ay jëf yu baax yan nga ñu ci mën a jàngatal ci biir eh, ay yi nga xamante ni rod na ci suratul Luqmaan incha allah Cheikh Mouhamed eh, maa nga tuuti bala ñoo ñëw si foofu mm-hmm. eh, Cheikh Thiam dafa am résumé bu am solo bu mu def mm-hmm. ni borom kër gu ne mm-hmm. nekk Luqmaan sa kër ñu bëree bari tey maanaam danoo desee def effort ñu mhm. ma mhm. si seen côté njaboot mhm. parce que ñu dañoo càggante ko ok ok maanaam ñun dañoo jàpp ne xale ñu bari si ñun faw nga soxla ko moo tax nga woo ko pour yónni ko wala liggéeyale ko wala yu mel wala boog faw mu def dara ba pare faaw mu def dara xam nga tey Luqmaan boo boo xoolee jàngatee si comme ay ñiw ñëwee si alquran gisoon ni fenn fu la doom ji daa def dégâts ba pare moo ko di ko yedd waaye dafa gis ni doom ji war na xam kan mooy boromam bi nga xamante ni tey xéewal yëpp moom moo ko defal ah mu gis ni daf ko ko war a xamal mu woo ko mu ñëw mu koy xamal kan mooy boromam tey ñu baree bari si ñun waajur yi foofu dañ fa am problème mooy ni jàpp na ne xale moom faaw nga dem ba soxla ko wala boog mu def dara nga door di ko jubbanti wala door di ko xamal ni ko waroo def lii nangam nangam. maanaam mhm. li ma bëgg a wax foofu moom mooy ni. Mhm. jotaay bi wa waajur war di am ak doomam. Mhm. wala ña yar. la muy manqué la muy dafa bari. sa nag itam xale moom xale la loo ko waxul wala nga xamal ko xamu ko. kon xamal gi nu war di toog a xale yu bari di leen xamal kan mooy yàlla. lan la yàlla bëgg si yow lan moo la indi si àdduna ah xéewal yi ma am nii kan moo ma ko jox nangam nangam di waxtaan ak moom si moom di ko yee. yooyu dafa manqué. Mhm. waaw kon ñun waajur yi war nañoo bàyyi xel foofu yu roy fa Luqmaan bu baax a baax a baax si bari la ñuy du ba bari toog ak sunu njaboot. Mhm. di leen xamal yàlla kan mooy yàlla lan moo la indi si adduna lan moo la war sa digganteeg sa borom lan moo la war sa digganteeg say waajur. Mhm. lan moo la war sa digganteeg jaam yàlla yi société bi mhm. loolu faaw ñu koy xamal xale yi woo doom ñu koy yaa bunayya mhm. tushrik billah mhm. inna shirka la zulmun adim dëkk kaa xamal kan mooy boromam bu ñu si ñaareelu euh, kii bi almuta ñaareelu wàll gi ñaareelu wàll gi si ndénkaan yi moom mooy gi muy xamal boromam doomam moom mooy liko ko war si ay jëf yu baax waaye foofu itam Mouhamed nga baal ma itam. Mhm, mhm. bala ñu fooy ñëw. Mhm. dina am am na benn aaya boo xamante ni dañu ko xaw a romb. doonte bokk si ndénkaan yi. waaye dafa am. maanaam. ak lëkkale ak lëkkale. moom mooy. wassayna al insaana bi waalidayhi xamalatu ummuhu. wahnan ala wahni ila axiri aaya. ngir gagné temps bi. xam sunu borom foofu. gannaaw ba ba man xamalee doomam ji. Mhm. kan mooy boroomam. Mhm. sunu borom dafa mel dafa indi foofu aaya bu nekk genre jumla i'tiraadiya mhm. waaye a bokk si ndénkaan yi waaye nag dana war a ànd ñoom ñaar ah, mooy doom bu xamee yàlla ba pare nag waajuram moo si topp wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana te muy xamal doom ji ni ko nag yow itam nag na nga say waajur rôle bu bi na am si yow waaw taxawaay bi nga war am si ñoom nga am ko parce que ñoom danoo mhm. sonn yow nga door a ñëw waaw mhm. ah, danoo sonn yow nga door a ñëw mhm. moo tax waa ji ba mu ñëwee si yonente bi sallallahu alayhi ni ko bu ma amee benn kan laa jox mu ne ko sa yaay mu ne ko mu amaate mu ko sa yoon parce que yaay dafa sonn si doom kon doom ji itam gannaaw bi ma xamee yàlla dafa war a xam aqi waajuram lan la war a def si ñoom lan la leen war a taxawee yu mel noonu loolu moo tax yàlla indi aaya boobu fii nii Omar ibn Khattab dañuy wax ne dafa dajeeg benn waay sa kaaba ga mu booti yaayam di ko wërale kaaba gi mhm. waaye ñu ne ko Omar man de xanaa àqi waajur moom fi mu ne nii moom mat maanaam li ma war sama waajur yëpp xam naa def naa ko fi mu ne nii mhm. gis nga fi mu ne nii sax maa koy boot di ko wërale kaaba gi mhm. Omar ni ko ndax mus nga mus nga wasin ndax mus nga wasin <laughs> kon loolu li muy tekki rek moom mooy ni waajur doom mënul fay waajuram doom mënul fay waajuram ak lu ko man di defal waaye nag ñu baree bari si ñun tey daanaka buñ defee benn ñaar ñett suba gannaaw suba rek jàpp nii tey defal nañ suñuy waajur àdduna ak àlaxira léegi koo xam ne ñàkkul dara ak mère bi ñàkkul dara defal na dégg naa sama yóbbu naa sama waajur màkk léegi wa wàcc na faye goo ko def jox goo ko dara <laughs> kon ñu bàyyi waale xel mhm. maanaam njaboot gu ne mhm. ne boo gannaaw bi nga bàyyee xel yàlla. Mm-hmm. àq yi nga ko war a defal nga defal ko ko. Mm-hmm. say waajur itam nga bàyyi leen xel. Mm-hmm. kon noonu dañuy da gaawe rek ñëw si. ñaareelu pàcc bi si ndénkaan yi. Luqmaan bi mu xamalee doomam ji kan mooy borom bi subhaanahu wa taala. dafa ñëw nag. di ko xamal kan mooy maanaam nan nga war a def. ba am ay jëf yu baax. Hmm. al mutaalliqa bil amali Mhm. parce que nit ki xam sa borom rek doyul mhm. xam naa ni yàlla ba dafay bañ bokkaale mhm. yàlla bëggul kuy tooñ yàlla bëggul nàngam lii la yàlla bëgg lii daal kii nag nga def nag ay jëf yu tax nga mën a am yàlla moom est-ce que ah, ilayhi yasaadul kalimu tayyib wal amalu saalih yarfa'uhu tax nag gannaaw bu nga xamalee borom la mu ñëw di ko xamal nag léegi nan nga war a def nag Mm-hmm. bay jëf ay jëf yoo xamante ni mm-hmm. yàlla daf koy gërëm daf koy kon daf si kontaan mm-hmm. la jëf yooyu mu ni ko yow sama doom aqimi salaat julli la ko jëkk tàmbale yaa bu ne ya aqimi salaat na fexe ba fonk julli respecté julli waaye di ko def comme ni nga xamante ni noonu la ko sunu borom bëgge parce que julli moomu mooy jëf bi nga xamante nii tey mhm. moo féetee jëf yëpp kaw nit ki loo man di def si ay jëf yu baax waaye boo ngay sarxe ay million mhm. ak loo mën di def mhm. waaye julli moom bokku say mbir moom defoo tus dara nga def te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni woon yéefar bi maanaam ak jullit bi li leen teqale moom mooy julli dëgg la bari waan na tey koo xamante ni mu ngi dugg si kaw suuf di woote ak jullit fekk du jullit parce que du julli waaw du julli bu ju parce que koo xam ne bu la neexee tey nga heure boo boo ko sentir ngay julli kooku du du julli ko. waaw waaw xam ne bu seen jëlaalee suuf rek dañoo dañoo suuf jale waaw <laughs> kon Luqmaan. incha allah musal xam ngim xam julli. Mhm. rôlam. Mhm. martabaam. Mhm. moo tax li mu ko jëkk a jàngal. si jëf yi nga xamante ni tey moom mooy tax. yàlla bëgg la yàlla gërëm la li ko jëkk a jàngal moom mooy julli. moo tax. si beneen ayes da nga gis suñu borom mu ni waj'alu buyutakum xibla waaw seen kër yi na ngeen ko def mu nekk ay jàkka def ko këru lislaam waaye mooy këru jullit këru jullit moom julli waaw kër goo xamante ni tey waaw goo xamante ni tey bu julli jote eh. maanaam eh, doo ko santir hmm? doo ko santir mooy doo gis jigéen ña bokk def benn mbooloo doo gis góor ña jàpp génn dem sa jàkka ja loolu mooy doo ko sentir maanaam julli fu mu jotee si kër kër gi dafa war a sentir ni julli jot julli jot na wallaahi mm-hmm. góor ña jàpp gën dem julli ji mm-hmm. jigéen ña def mbooloo daal di julli comme ni ngeen ko yàlla sant mm-hmm. que ay kër goo xamante ni loolu amu fa kii nga julli sa loqu bare kii nga julli sa loqu bare kii moom day dajale ay julli moo ngoon mu ñëw uh, sotti ko yàlla na mu ko sentire axi googu kër <laughs> maanaam waa kay kon Luqmaan loolu la jëkk xamal doomu yaa bunayya aqimi salaat loolu yàlla ni woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. wa amur ahlaka mhm. Mhm. sa njaboot ñu julli sa nga muñ nag coono yi sa am parce que yombul waaw mm. njaboot jaamu yàlla mm. waaw mbir mu jafe la ñun na jàpp gin ko jàpp mu yomb sax yenn saa yi moo tax mu xaw ñuy trompe ah waaw boo waxee benn yoon tey kii déggul rek nga jàpp ni moom àdduna tukki na ah, sa nag yow da war a dëkk si wax <laughs> waaw war a dëkk si wax <laughs> beneen bi sax moom mooy ni si jëf yu baax yi mu koy jàngal. Mm. gannaaw julli. Mm-hmm. mun ko wa mur bil maaruf. Mm-hmm. yow sama doom. Mm. del digle lu baax. Mm-hmm. del digle lu baax foo gis loo xamante ni lu yàq la. boo bu bu fekkee ni boo waxee mu deñ waxal. bu fekkee sa loxo mën na ko dindi dindee ko sa loxo. boo ko mënul dindee sa làmmiñ mënoo ko dindee sa loxo. Mm. na ko metti lu ba yàlla xam ne yow lii de mais neexu la da nga see mënul dara. est-ce que. kon ndigal gu baaxu googu tey. fekkoon tey jël nañ ko tey yaatal ko. dëgg la. ah. Mhm. tey xam ne mii tey. Mhm. bu nekkee këram du nangu tey gis loo xamante ni lu baaxul la mu bàyyi ko lu ni def saa wax. Mhm. bu dee bu génnee si mbedd mi tam noonu. tey bu fekkoon ne ñëpp noonu lañ koy jàppee tey. tey doo gis tey ay xale wala ñenn def na ko su dul noona. tey doo gis kenn ko ànd. mais tey da ngay gis tey waxuma la tey même kër yi waxuma a mbedd mi même kër yi da ngay gis tey kër da nga xanaa fii kilifa amu fi. Ah, waaw neex waay def. doo dégg kenn wax. <laughs> Hmm, hmm, hmm. kon digle lu baax loolu. Mm-hmm. faw ñu koy def wa amur bil maaruf. Mm-hmm. waaw wa amur bil mm-hmm. ko yow sama borom. yow sama doom. bokk na si jëf yi tax yàlla bëgg la. mooy dee digle lu baax. lu baax. waaye wa nahaa anil munkar. del tere lu bon. sa ñëw na sànq si biir wax ji mhm. digle lu baax tere lu bon ñaari ñoom ñoo ànd mhm. waaye boo gisee tey mu ni ba mu waxee wanha anil munkar del tere mhm. ba pare lu mu sa teg wasbir mu lënkale leen ñoom ñaar ala ma sabak parce que digle lu baax foofu jafe-jafe amu fi eh dem leen julli wóor leen nit ki mooy seer rek Mm-hmm. imaam mu topp li nga wax wala mu bàyyi waaye xam nga fan la jafe-jafe bi nekk mm. mooy tey doo fi musique wala doo fi naane sàngal mm-hmm. tere <laughs> gu bon bi waaw ba foofu la problème bi nekk mm-hmm. tey fii kenn du fi defe nangam lu yàlla bëggul mm. foofu la problème bi nekk foofu moom faw ki koy def moom mu yëg ni ay jafe-jafe lay dund ba keneen muy dee tax jafe-jafe yooyu yàlla xam ni moom la dund ba keroog muy dee mhm. ah lu xamal ko Luqmaan si xereñte gi ko yàlla jox mhm. loolu tax mu ne ko nag wasbir ala ma asabak mhm. na ngay muñ nag jafe-jafe ya sa nekk est-ce que parce que ay maanaam méttit yu bari ngay ngay jànkoonte inna dalika min azmi al umur mooy bokk na si mbir yi nga xamante ni mooy yi gën a dogg si mbir yi waaw kon loolu mhm. moom mooy almutaalliqatu mhm. euh, bil amali saaliha macha allah jazakumullah xeyran cheikh aziz <laughs> euh, am na solo loolu ginnaaw bi nga xamee ni luqmaan mhm. xamal na doom ji boromam subhanahu wa taala ma ngi koy xamal nag jaamu yàlla yi maanaam jàngal na ko kan mooy boromam mu xam ko jox ko dayoom léegi nag mi ngi koy jàngal boppam moom ndax nit ki ay jaamam moom lay jëriñ digganteem ak boromam tawxiid aqida diggante ak boppam jaamu ngir jariñu àdduna ak alaxira gis nga kon luqumaan ñëw na ginnaaw bi mu lëkkalee doom jeeg borom subhanahu wa taala lëkkale ko jaamu yàlla yi nag Mm-hmm. njëkke ba ca eh, gën a féete kaw ci jaam yàlla jëf yi di julli mm-hmm. junñu ne ko ak importance bi ko lislaam jox mm-hmm. yonent bi sallam wax ne sax ëllëg yawmal qiyaamati moom lay njëkk a xisaab ci nit ki awwalu maa yuxaasabu bihi al abdu yawmal qiyaamati min amalihi salaatu li ñuy njëkk a régleel nit ki ëllëg yawmal qiyaamati ci jëfam ak julleem bu jagee lépp jag duñu xoolati yeneen dossiers yi daanaka bu safaanoo fële lañ koy teg duñu xool yeneen ni ndax baax naam déet juñu na ko sànq loolu am solo waaye digle lu baax tere lu bañ te muñ ca Mm-hmm. déglul waxtaan lu bon lu am solo la ci lislaam ñenn ci borom xam ne dañuy wax ni arkaanul islam bu doon nekk juróom benn mm-hmm. al amru bil maaruf wa nahyi anil munkar mooy nekk juróom benneel bi mm. ngir wane dayoo gi dayoo gi ni mu amee solo yàlla alag na ay xeet te la tax mu alag leen mooy bañ a góorgóorlu ci digleel waxtaan lu bon lu'ina alladina kafaru mm-hmm. min bani israila ala lisani daawuda wa isa bni maryam dalika bima asaw wa kanu yactaluuna kanu laa yatanaahawna an munkarin faaluhu kon gis nga ni ndénkaan yi aju ci jaamu yàlla yu am solo la tënkal nañu ko ci ñett yooyu Cheikh Abdoul Aziz loo ci macha allah eh, uh-huh. tabaarakallah li mu mu li mu fi dafa am solo lool uh-huh. eh, te comme ni ko alquran a ande uh-huh. da ngay xool eh, jamono ji ñu toll comme ni ma ko doon waxee ci sa émission yi weesu alquran saa yoo ko jëlee mu régler la societé dëgg la jamono ji ñu toll ñett yi mu andi aqimis salaa Mm-hmm. Uh, wa'mur bil maaruf mm-hmm. wanha anil munkar mm-hmm. maanaam mooy ñett yi nga xam ni mënul ñàkk ci société te fii mu toll nii li ma la doon wax sànq ni boroom kër gu nekk da nga war a nekk luqmaan du wax moo koy def ci nit ki xam nga man mi nekk man maay man maay man maay kilifa kër gi. Mhm. julli jot ma toog sama saal yor sama ordinateur baa ma jàkkaarloog sama télé yor commande bi te naan xale yi jug leen julli ji duñ la déglu. déedéet dëgg la de. yaa jëkk jóg kay <laughs> duñ la déglu jàpp ba tooy jàppul tooy xëpp jug nee jug ñu julli ji. waaw bu boobaa ñoom ñu xam ne nii la ñu war a def. est-ce que ab kilifa toog ak ay soxnaam ak ki doomam. Mhm. di dagg saaga fu mu ko gën a neexee. di yuux fu mu ko gën a neexee wax ju bon bu ne mu wax ko xale day jàpp ni kon lii baa lii paa bi di def loolu bu xale bi eh, saaga daal ko ko waaw du ko bàyyi mu léegi nag digle lu baax loolu maanaam bu heure julli jotee nga jug jàpp jiital sag njaboot na soxna yi jug leen ngeen jàpp ju julli mhm. dem jàkk ja julli ji mhm. ñibbisi mhm. ñu toog ci boolu añ xoolal bu njëkk kër yi da nga daan dem benn bool lañuy def ñëpp bokk ci toog lay ak amoon solo ku eh, boroom kër gi ci boppam boo xoolee sax dañ ko daan wutal kudd goo xamante ne bii kenn du ko laal man de na ko jeex na <laughs> wallaay ku dugg moom dong daaw ñu commencé. lu dul ni moom borom kër gi def ne bismillah. moom gën bismillah muy jiital. moom mooy tax mooy fàttali waale ñi sukk si boor bi dañoo war a commencé. dañoo war a commencé bismillah bu ko defee ñoom ñëpp ñu naan nag moom ci boppam. Euh, bu toogee nii. benn soxna toog nii benn soxna toog nii doom yi toog nii wër ko. kenn ku ci nekk. Euh, soxna yi ci seen bopp ñoom lay jox ordre ñoom rek la seen loxo di dem ci digg la dindi di tegalaate tegal gone yi tegal gone yi tegal ko mm-hmm. ndax moom mooy kilifa gi mm-hmm. loolu mi ngi mi ngi jàngal société bi wala boog mi ngi jàngal këram mm-hmm. wala ay doomam nan ngeen war a dundee ci société bi dund bu baax digal say soxna lu baax toog boo gisee loo xamante ne bii gis koo xamante ne bii na muy lekkee baaxul nga ne ko du nii defee ko mhm. nii mhm. comme na yent ba waxoon xale ba mhm. lekkeel sa ndeyjoor te lekk li ci sa kanam loolu boo toogut ak sa doom di ko di lekk lekkandoo ak moom doog ko a doog ko a sant waaw <laughs> da ñëw na ci wax yonent bi ay yoon mu ngoog loolu day wane ne daana toog ak ñoom daana bokk ak ñoom daana ànd ak ñoom mu la léegi nag société bi ku bëgg nekk luqmaan uh-huh. foog nga dajale sa njaboot nekk luqmaan ci seen biir uh-huh. di jëf lu baax ñuy gis ndax uh-huh. loolu rek moo la ci mën a génne di leen teeralu bon te bañ see bokk. jërëjëf Cheikh Abdoul Aziz mi ngi insisté ba léegi ci nañuy nekk luqmaan ci sunu biir kër. <laughs> waaw nañuy nekk luqmaan ci sunu biir kër yàlla na nekk luqmaan ci sunu biir kër. <laughs> Cheikh Abou noo ngi may junj ni émission mi ngi waaj a cate. Mhm. xam naa dañu dugg si bu gaaw kon ci al wasail mutaalliqa euh, bil alaqati ma annaas. Mhm. luqmaan bokk na ci ndénkaat yi mu doon dénk euh, doomam. Mhm. yenn yoo xamante ni dafa jëm nag ci nan la relation ak nit ñi ak jëflante ak Euh, kon moo Cheikh Mouhamed mhm. euh, dañuy ñëw si euh, bu mujj bi mhm. comme ni nga ko waxee sànq moom mooy ni mhm. Luqmaan gannaaw bi mu xamalee doomam ji kan mooy boromam xamal ko yéen jëf mooy yi nga xamante ni moo ko mën a maanaam tax mu am borom ah, léegi nag mu ñëw ak moom nag si comportement am mënoon ko tudde noonu waaye itam mënoon ko tudde itam naka lay mën a jëflante société bi ba ko gis bëgg parce que loolu am am solo la. Mhm. na sa sa comportement naka ngay mel sa comportement. Mhm. ba tey yow ku la gis rek bëgg la. la waaw si yar ak teggin mhm. na ngay doxee na ngay loolu tax mu ni ko fa mu commencé. mooy bi nga xamante ni tey. ku yàlla maanaam euh, duma. ku yàlla duma. duma yu muy mel yi muy duma Firawna rek. da am jikko boobu. moom mooy rëy yal na si yàlla musal rëy wanax ah, uh-huh. mu ni ko wala tusaxir xaddaka linnaas uh-huh. yow sama doom uh-huh. fexeel ba bul jéng-jénglu si kaw nit ñi sab leex walla bul ngand ngandalu si kaw nit ñi xam lan moo tax mu jël leex jéng-jénglu gu leex wala mu jël baatu saar parce que arab yi dañuy wax ne saar mooy gileem loola nekk sa kawam noonu mhm. boo amee góom mhm. loolu lañ koy tudde moom la ñuy tudde góomu gileem mhm. ñu bu ko amee góom jili gileem bu ko amee fii comme que siddi bu mag bi foofu la jaar da ngay gis ne day wengalu waaw du jub waaw loolu tax arab yi jë ñu ñu ñu tudde ko saar moom mooy jéngalu googu muy jéngalu Luqmaan ni doomam ji bu rëy rëylu di jéng jéngalu si kaw nit ñi parce que tey sëñ dañuy xool suñ jamono ji tey néew na nga gis jigéen buy wane ak puukaréew wane wala wane ak ngand ngandalu wala ak rëy rëylu lu ñu daa daa jéngal ab lexam <laughs> bu dee góor faaw nga gis ko mu ni nii yëngatu sànni loxo bu dee jigéen mu rege ju tourné ay lexam yéen a ma gën ah, <laughs> gis nga loolu moo fi am. romb ni ko walaadu saair xaddaka linnaas ña foo fekk kuy ngand ngandalu si kaw suuf mm. imma mhm. mu wàcc tubayam mhm. tourné ay weeram sa gannaaw ak kabam mhm. di yëkkati ay tànkam nag benn bu mu yëkkati day jàpp ni boobu war a gën a kawe bii ñëw wata mu segsi wala tamsi fil ardi maraha bul dox mukk si kaw suuf di rëy rëylu fëri si suratul isra mu ni ko innaka lan taxriqa al arda walam tabluxal jibaala tuula boo kawee kawe lu mënoo fexe ba tollook montagne waaye mënoo fexe ba bëtt suuf dafa mooy bul bonde bul bonde <laughs> bul bonde mu jeex na bul bonde kon muy xamal doomam ji ni ko pour nga mën a am nit ñi faw nga wàcc sa bopp nit lu yàlla man di wërsëgal mu xam alal la mu xam doole la Mm-hmm. moo xam man-man moo xam lu mu mën di doon mm-hmm. bu la nit ñi dee séntu fële mm-hmm. fexeel bu ñëwee fekk la fi suuf dëgg day tax yàlla di la gën a yëkkati dëgg la waaye bu fekkee yaa ngi yóbbu sa bopp foo xamante ni yéegoo fa si wanewu puukarewu nangam nangam nangam na ak yeneen ak yeneen yàlla da lay dëj doo dem mukk doo dem mukk bari na ñi tey si kaw suuf ndaw ñi nga ne ni daanaka loolu moo nekk seen micc foo fekk ngand ngand lu jaay kii yàlla xam ne da ngay xëy benn jour boo dajee ñoom da nga naan du kii laay daan gis. la. Mhm. kon yal na si yàlla musal. kon rëy googu. Mhm. Luqmaan mi ngi ko xamal doom ji. mu mhm. moytu ko bu baax a baax. waaye bokk na si yama ko doon xamal. ngir mu mën a am nit ñi. mën a am comportement bu baax. mooy mu ko yow sama doom. booy wax deel wàcc sa baat. bul wax sa kilifa mukk di yëkkat sa baat. bul wax mukk fu fu mu toll fu waay toll di dégg sa baat. Ah. fu waay toll di dee di sabaat sa mhm. Mhm. mu ni ko wax sid fii machik mhm. wax dud min sawtik wax sid fii machik moom moo jiitu moom mooy sa sab dox nii diggu dóomu gannaaw ba mu ko waxee ni ko yow bul dox di bonde dafa ko xamal nan la war a doxee sa dox dafa war a diggu dóomu war a mel ni wax na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan dox yonente bi bu daan dox dañuy wax ni day mel ni koy wàcc si mbarta daawul gaaw bu mu ba boo gisee tuddi ko daw mhm. waaye daaw yéex itam ba boo gisee teg teg ko am yembar parce mhm. que doxub julli day diggu doom diggu doom day diggu doom mhm. ah, loolu mu ni ko wax sit fi machik sab dox nay diggu doom waaye si beneen firin itam mu ni ko sab dox tam ne am jumluwaay al bul rek koo xamante ni tey fu fu nu tourné ne fekk na. taxawaal waaw di taxawaal te Mouhamed bu bàyyee këram ñëw fii tey Mouhamed bu bàyyee këram ñëw fii tey daa am jubluwaay bu ko fi andi. dëgg la <laughs> sa mooy lii ñuy def. Mhm. kon nit ki ab doxam. Mhm. déplacement am dafa war a am jubluwaay. du war rek foo xamante ni nit koo xamante ni tey fu ngelaw li tourné rek fii la nga dem. fu dem fekk la nga xamoo ko. waaw kay nit <laughs> sa dox dafay am jubluwaay mu leer na yow def nii tey. dafa am jubluwaay boo xamante ni tey da nga si am njëriñu àdduna ak ju àllaaxira. est-ce que mm-hmm. mm-hmm. mu ne ko wax. Euh, euh, euh, waqsud fi machik waqsud fi machik. Mm-hmm. waqdud min sawtik. inna ankara al aswaati la sawtul hamiir. est-ce yàlla gën a sib. yàlla gën a bañ. mooy baat boo xam baatu comme baatu mbaam. fekk nga yuuxu. di wax loo xam ne lu ñor ak lu ñorul ah di tàngal nit mhm. si yoo xamante ni amul kii. Mhm. macha allah <laughs> kon foofu la ñuy. macha allah macha allah xam naa ñu ngi ma ñun li ci ah. des ci waxtu bi bëriwul. dama lay bàyyi rek nga defaale kàddu tàggatoo bu ko defee ma dem ci Abdoul Aziz mu taaliq moom it tàggatoo. incha <laughs> kon xam naa fi ñuy tàggatoo rek. moom mooy ah, ni ah. ñu jeexale suñuy kàddu. ñu ngi jéglu mbokk yëpp. ñu ngi diglu. Uh-huh. ak ñi nu war a diglu si digloo gunnu uh-huh. ñu ngi leen di jéggul lépp loo xam ne wax nañ ko si njuumte uh-huh. ñu xam ne suñu matadi la lu si jub ñu sant ko borom bi subhaanahu wa taala waaye di def loo xam ne wala la waroon njëkkee di nuyu uh, waa daara Ahmed sax Lo macha ak soppee daara yëpp nag parce que ñun ay ndongo la dañoo am si daara pour ñu nekk itam dañ koy wane uh, bu ñu gisee koo xamante ni ndongo la comme ñun maanaam nitu daara itam dañuy am fierté bu baax a baax a baax sopp loolu ñu ngi soppee daara yëpp waaye di delloowaat di dénk mhm. mbokk yëpp ni leen mhm. rawatina waajur yi mhm. bu mooy ne xale boo bëggee mu jag da ngay sonn si yar ko yar ga nag dañ koy séddale si ñetti xaaj mooy xel xelum xale dañ koy yar ruux dañ koy yar yaa ngi dégg euh, niki noonu tam waaw euh, ruux bu ne li koy yar bakkan tam dañ koy yar bu ñetti ruux doomu aadama li koy yar mooy fexeel ba tamal ko jaamu yàlla xel li koy yar. Mm. mooy fexeel ba yar ko si xam-xam. est-ce que bakkan li koy yar. Mm-hmm. fexeel ba mu am jom. ba mu mm. gisee lu yàlla bëggul mu bàyyi ko fa. est-ce que kon loolu rek la ñuy daanale. est allah macha allah Cheikh Abou Cheikh Abdoul Aziz euh, daanale na tomb yu am solo. yu am solo dénkaan yi nga xamante ni Luqman daf ko dénk doom jotam aju ci diggante ak nit ñi. Mm-hmm. bu leen xeeb. Mm-hmm. bul xeeb nit ñi. bul réeréeru seen kaw. del wax ndànk te fa del dox ndànk. te am foo jëm. <laughs> del wax ndànk ndax. te xam looy wax te xam looy wax ma yu am solo la xam naa loo ciy taaliq rek. wallaay waaw dafa dafa dafa am solo te mooy fi mu tàmbalee. Uh-huh. Luqmaan woo na doom ji. Uh-huh. xamal na ko kan mooy boromam. Uh-huh. xamal na ko nan la war a jaamoo. xamal na ko ni da nga war a génn. ay booy génn nii ngay def. ci société bi. kon kenn ku nekk yëg nga ni sa doom dafa war a génn. doo ko tëj rek ci biir kër gi bàyyi ko foofu. di ko jàngal julleel wooral kii bu génnee bu gis nii bu gisee ni société bi nii lay dundee sama kër dundeewu ma fa nii mhm. day am leneen lu muy def ci moom mhm. moo tax euh, dëgg la yar ko ci biir kër gi mhm. jàngal ko xamal ko waaye bàyyi ko mu génn nag pour xam léegi bu génnee nag la ko jàngaloon ci biir kër gi dina tax bu génnee lu mu gis lu ne rek dina xam fi muy teg tànk moom te dénk ko doomu aadama ne ko lii laa la dénk doo gis mukk ko ci anse doo gis ko ci anse yonent déedéet wala ancien imam <laughs> parce que l'islam moo ko ah, moom ah. moom ngay ànd ak moom ba keroog ngay wuy sa borom mais leneen lu dul loolu mooy wala tamshi fil ardi marahan googu mhm. waqsid fii mashikaak euh, yooyu yëpp benn bu ci nekk mhm. boo gisee ki koy def da ngay jékki-jékki gis ñu ne moo du kii moo fi yoroon nangam ak nangam ñoom dañ koy wax sax samay jamono mu ngoog jamono boobu daf da ngay da ngay xew tey suba nga xew bi ah. li gars yi di wax da ngay am bës tey bu ëllëgee keneen jël bës bi dem yoonam bàyyi mm-hmm. bàyyi la fa nag bu ko defee nga tong kon li Luqman dénk doomam mm-hmm. mooy loo xamante ne bi kenn du ci am ancien kenn doo mm-hmm. nekk ancien yonent mhm. wala nga nekk ancien imam wala nga nekk ancien sëriñ daara wala yooyu yëpp benn bu ci nekk da nga cay nekk rek ànd ak mhm. moom ba keroog ngay wuj sa borom yàlla ñu ko yàlla boole defal di gërëm waa Tawhid TV yëpp di la mhm. bu baax a baax a baax la nuyu tamit téléspectateur wu Al Huda macha allah bokk ci euh, sama émission préférée yi nga xam ne <laughs> <laughs> dama koy a mu ngoog suñu suñu émission préférée macha allah <laughs> jërëjëf macha allah jazakumullah Cheikh Abdou Aziz euh, Tawhid TV yëpp rek ndax émission Al Huda mi ngi fi Euh, daaray nabi wala l' école à l' école du prophète sallallahu alayhi wa moom moo ko yor ci télé bi di ko doxal doxal am solo jublu ci génne jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalaat ko kii ak yeneen yu am solo yi nekk ci kër gi am na yàlla boole ñu jëriñ euh, jërëjëf mbokk yi jëloon seen waxtu di topp émission Al Huda jërëjëf euh, sëriñ abu ci aaya yu am solo yi ñu jàngatal wan ñu ne Luqmaan borom bi daf ko joxoon xikma ne ko sant ma ci sant gi nag la ci jiitu mooy yar sa njaboot kon nun ñëpp buñ nekkee Luqmaan rek société bi jot euh, jak sant yàlla ci lim ñu defal mhm. yar sunu njaboot ndax ñii génn ci kër yi ñooy société bi waaye yar gi gis ngeen dénkaane ci yim ko teg xamal ko borom bi subhanahu wa taala mhm. xamal ko li ko war digganteem ak borom mooy mu jaamu ko xamal ko li ko war diggante digganteem ak moromam mooy bañ leen a xeeb te xam yi nga xamante nii moo dox mhm. ci diggante ak niñ ci ay àq waaye Oustaz Abou junjulu am solo bi Luqmaan xamalee doom ji yàlla yàlla daa dugal ci diggante bi muy indiwaat yaan beneen jus bi ci kii bi xamal euh, doom ji kan mooy bàyyam damay faral dox ni foofu dafa mel ni Luqmaan daa wax ba pare laa tushrik billahi inna shirka la dulmun azim yàlla na Luqmaan may ma ma wax xale bi kii wax ak moom ban dayoo la am ci moom ba mu xam nag wa li nga koy wax solo si am ci moom waaw gis nga daal di dugal wasanal insaana ak ñaari ay ñaari ay yeccato euh, kon loolu lu am solo la mbokk yi lii mooy wasaaya luqmaan mhm. euh, mënoon nañ ko gën a yaatal lool lool waaye lu jiwoo jeexal jugu fa mhm. noo ngi gërëm tey yóbbante nuyoo ci waa daara Ahmed Sakhir Lo yëpp rawatina Cheikh Mouhamed Bara Niang kan yàlla yokk leen barke gën a barkeel daara ji ak mboolem daara yi nga xamante ni ñu ngi ci réew mi bitim réew seen mbokk la woon Abou Taha